ak observateur indil ma le soleil teg ci quotidien indil sud quotidien ñoom ñëpp ñoo bokk ci lu ñu xëy mu di kan mbirum Bara Gaye mi nga xamante ne ji démb ma nga woon ca kanamu ñi nga xam ne ñoo di alkaati yu brigade euh, des affaires générales yéen a kay bi l'observateur xëy ñu xamal ne moom Bara Gaye danañu ko présenté tey ji ca procureur ba démb commissariat du port la leeral jox na kaddu gi Omar Sarr bu moom biir na ko ki nga xam ne moo di Bara Gaye tey ji la ñu koy inculpé tey la koy jugé Bara Gaye ana moo tax heure bu jugee rek songo Macky Sall observateur xëy na ci dellu siwaat le soleil xëy ne moom jiital UGTL gi di Bara Gaye tey defeere dana janoo ak procureur ba euh, euh, quotidien moom it euh, feelu ko dëggal wax ja Sud Quotidien moom gën leen caa sori la mu xam ne moo di Bara Gaye ñaari jéego kese moo ko des ngir mu fekki Karim Wade ci gàttal Bara Gaye jege na kaso bu rëbës Codé Mbengue tëb na le quotidien xëy ñu xamal ne Codé na far nañu ko décoder maanaam fa nga xamante ni foofu la nekkoon jiite police su Sénégal jëlee nañu ko fa dàq nañu ko ku ñu naan Ibrahima Diallo moom la ñu jël tekk Ibrahima Diallo moomee yéenekaay bi nañu donte am nay ñu jëlee Codé Mbengue moom Ibrahima Diallo la ñu jël dénk ko police bu Sénégal libération xëy ñu euh, nettali kii di Codé Mbengue ak daq ak la xew ci coulisses yooyu lépp yéenekaay bi dellusiwaat na ci enquête moom feelu ko ba tey ci woowee wàll ak li nga xam ne noonu la ñu dàqee Codé Mbengue Sud Quotidien nañu ak lu am ba des moo dinañu xam ne kii di Codé Mbengue ak dàqam ca police nationale Omar Sarr génnu ci Omar Sarr mi génn réew mi fa mu jaar dañoo gis ne police sub Sénégal la war defuñu ko moom moo tax ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne ji am na li leer ba leer daal moo di kii di Omar Sarr mu yóbbu Codé Mbengue Walf Fadjri mel ne ku ñaan dañu ko yàpp rek ndax it kii di Codé Mbengue dañ ko fay looy ay supérieur ñoom ñoo ko def yéene kaay bi nañu police sub Sénégal ak fay yi nga xam ne am na ko police sub ñàkk a xerañ gi nga xam ne am nañu ko fa ñu tëlee loolu lépp dañ koo feeñal ba mu ne fàng Codé Mbengue la ko yóbbu journal bi ñu jàpp leen génn ko Omar Sarr ci réewum Sénégal ca ñu tere woon ko ko police waroon koo surveiller bokk ci waaye seen ak ni nga xamante ne ji noonu la ñu doxalee yëf yaag fa mu mujj wal fajir nañu lii bokk na ci li nga xamante ne ji moom moo tëbal Codé Mbengue ma tëb ñu daje ji ci direct info xëy ñun ci mbirum Baba Tandian Baba Tandian